waaw waaw waaw combat spécial combat de la soirée neuvième combat de la soirée Max Mbargane numéro 2 face à Ndiol Walo waaw waaw booboy combat spécial de la soirée comme ni ma leen ko waxee tey le mardi 15 août 2023 ñu ngi l'arène nationale le promoteur waaw yooyu waaw ay fem la ay fem la ay fem la ay fem la ndeysaan ku ci ne juutu na sa morom ndeysaan ku ci ne juutu na moromam waaw waaw waxee rek tey le mardi de 2023 nous ngi national le promoteur Pape Faye à la tête de la structure nous production organisés. comme combat spécial de la soirée Max morgan numéro 2 combat bi dem na combat bi dem na Max Mbargane numéro 2 moo ñu woon ginnaaw Ndiol Walo moo jàkkaarloog ñun waaw waaw combat bi dem na ñu ngi lewtoo ñu ngi lewtoo ñu ngi lewtoo ñaari njool la waaw waaw Max Mbargane numéro 2 moo ñu woon ginnaaw Max Mbargane numéro 2 moo jàkkaarloo moo ñu moo ñu woon ginnaaw noonu Ndiol Walo moo jàkkaarloog ñun. jàkkaarloo ñun Max Mbargane numéro 2 moo ñëwoon ginnaaw ñu ngi Leewtoo waaw waaw waaw waaw Max Mbargane numéro 2 Ndiol Walo Ndiol Walo mooy dox ci kawam Ndiol Walo mooy Walo attention Ndiol Walo Max Mbargane numéro 2 Max Mbargane eh Ndiol Walo jël na Walo jël na ko daan na ko waaw waaw Ndiol Walo daan na ko dem na ci mobile numéro 1 dem na Walo mi eh Ndiol Walo mi def ko ñaaw def de Ndiol Walo moo daan jël leer jël bu amul benn werante waaw waaw jëlal loolu laxasu mu ngi noonu ndeysaan waaw mais njool waalo mi njool waalo mi njool mi la bëri na bëri bi daan na jël bu rëy billahi dafa mën a bëre dafa mën a bëre njool waalo na boppam dafa dina mën a nam daan na Max Mbargane numéro 2 jël bu rëy jël bu leer jël bu amul benn werante Ndiol Waalo Ndiol Waalo Ndiol Waalo mi ngi noonu wane ci na boppam dafa dina maninam bëri na bëri bi daan na jël bu moom fi daan Allemand keroog moom Ndiol Walo tey bëre waat na daan jël bu rëy jël bu leer benn werante trois combats trois victoires na Walo Walo Max Mbargane numéro 2 daanu na Ndiol Walo daan na ko comme ni leen comme ni ma leen ko la mardi 15 août 2023 ñu ngi l'arène nationale le promoteur Pape Thialis Faye de la structure l'auto production organisée Ndiol Walo Walo Ndiol Walo daan na Max Mbargane numéro 2 jël bi rëy na jël bi leer na jël bi amul benn werante booboo nekkoon combat spécial de la soirée mi ngi noonu le vainqueur Ndiol Walo vainqueur de Max Mbargane numéro 2